jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD yi mbokki euh, tey fekk si nañ borom daaree alxuraan ji ci Touba muy Serigne Abdou xaadar Ndiaye ngeen gis jamono jee ca ginnaaw moo inauguré daara ju mag a mag def ko muy këru yàlla waaye këru jàngalekaayu alxuraan kii kilifa la jàmbaar la muy ñaankatu yàlla nag di seexul lasraar ku ne xam na ne jamono ji ñaan dafa gàllu góosee ñi si dugg te waruñ ci dugg ñi ñaan te waruñoo ñaan danañ laajte kan moo war a ñaan ak kan mooy seexul asraar mais laata loolu danañ dugg ci lay xew ci dëkk bi balaa boobu sëñ Abdou Khadir Ndiaye dañ lay bàyyi nga nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan wi sëriñ bi ñoo ngi lay ziare. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu jërëjëf sëñ dégg ñoo ngi leen di siyaar di siyaare baax sañ Medoune moomu di leen ñaanal jàmm bu wér ko sàkku ci yéen di siyaare mboole mbokki réew mi waaye mboole mbokki bitim réew yépp di tàmbale sunu kàddu ci badaxtu bi bismillahi ruuhi bi ihtadat illa kashfu asrarin bi baatinihin tawat wa hiya ilahil xalbi min baxdi mawtihi bu zukrika yaa xayyoo mi xaqan taxiyimat wa aleykum salaam wa rahmatullah sëñ dégg tey waxtaan dama ñu njëkkee ko ci wàllum ñaan yàlla ah, bëgg ñu njëkkee ko ci wàllum asrar kan mooy seexul asrar ak kan moo war a ñaan waaw jërëjëf sañ dégg laaj nga laaj bu am solo muy kan mooy sayxul asraar mhm. waaw sayxul asraar day nee ñu mooy ki nga xam ne maîtrise na mhm. xelmul asma mhm. xelmul xawaatim xelmul xadat xelmul xuróof am na ñoo xam ne dolli nañ ci ne xelmu sajar te mooy xam-xamu garab ndax asraar ñeent juróomi point yooyu yëpp sëñ dégg bu ñu ko dajalee Euh, dafay dugg ci biir allah mm-hmm. moo tax sax ñu ne dëgg dëgg dëgg dëgg asraar mm-hmm. mooy turu yàlla ku ko maîtriser wut mm-hmm. maîtriser woo dara ku maîtriser ñeent yépp te maîtriser woo asmaullah xamoo dara yaa ngi dalagut abajad yéen a yam te maîtriser turu yàlla dëgg sax te bañ a maîtriser ñeenti point yi des moo gën a wóor maîtriser ñeenti point yépp te maîtriser woo turu yàlla ndax xam na genn góor gu mag a mag gu dëkkoon fii ci Touba Soura mën naa ne Touba ba mu jeex amul ku ko mënoon ci wàllu asraar xamul nu ñuy tëralee xawaatim sax ci seex Cheikh Sidi Maxtaar mii ci la bokk jaara martaba biñ fi doon waxtaanee jamono yi ci moom la jóge woon jóge ci Cheikh Sidi Maxtaar jóge Sëñ Touba dégg mm-hmm. wax nga ko léegi mécc mi gàll góose na lool dara waralu ko nag lu may kojj yi nga xam ne nekk nañ ci biir ñebbe ji rax si te faaw ñu seppi leen munta ñàkk donte yàlla suturaal nañu nag ba biñ ci tàmbali dafay ay dog di ci ñaan yàlla mboolem lu ci bokkul mu seppi ko gis nañ ne lu bari mi ngi res léegi ñu bëree ngi daanu waaw yàlla nañ ci yàlla doole suturaal dégg turu yàlla mooy lépp lan moo tax sénégalais yi jàpp na yàlla waruñu koo gis. yàlla des koy gis. billaahi lazi mhm. suñu borom feeñu na ma ci saati liggéey naa ko ba mu feeñu ma ci. boo ko waxee Sénégal ñu weddi ko ndax xamuñu xam-xam. xamuñu ko. dégg turu yàlla dafa am. Mhm. xam-xam dafa am. Mhm. billaahi lazi man Abdou Khadir maa ko wax bu dul dëgg yàlla na ma yàlla lakk rey ma léegi te lakk ma. saati liggéey naa ko ba yàlla wan ma ci boppam billaahi dégg mm-hmm. yàlla mënees na koo gis de uh-huh. ci ban anam lañ koy gisee loolooy laaj bi lañuy gisee yàlla dégg sunu borom bi may wan boppam mm-hmm. ci zaati la ma wan boppam mm-hmm. jox ma ci ndigal joxal ma ko boppam waaye ku ñu mën a gis la loolu nañu ko xam mbir mu ne nag ñi ci xóot ba dugg ci ba xóot ci ah. maîtriser ko ñoo ko xam ki ko mos moo xam lim saf ku ko mosul xamoo lim saf Sénégal nag weddi lañ gën a man ci gëstu xam dégg génn ma point boobu bala maa yëngatu kon ñu dugg ci point bi nga xamante ni mooy béjjënu euh, kër gi lan moo tax nga ne béjjënu kër gi sëñ dégg béjjënu kër gi béjjën la boo xam ne kilifa gu ne war nga ko am ci sa biir kër ndax ku yàlla dimbale nga am ko man Abdou Khadir maa ko wax. sa biir kër danga am alal ba nit ñi naan kii ndax du daa sacrifice. billaahi béjjënu xaru tabaski bu nday joor lañu koy liggéeyee. képp ku yàlla dimbale nga am ko boo ñëwee mën na oyofal weexal bi. ku yàlla dimbale amoo béjjënu nday joor bi nag boo ñëwee mën na diisal weexal gi. waaye dégg. Mhm. bu ñu ko liggéeyee ba noppi. këyitu 500 francs lañ koy booleel. boo noppee da koy def ni ñuy def néew. perkaal ngay jël perkaale ko juróom-ñaari yoon. buñ noppee ñu denc ko ci biir kër gi nañ ko fa rob. man Abdou Khadir maa ko wax billaahi la si kër gi bu amul alal boo amee xaj tuddee ko. ba jënu xaru bu ndeyjoor lay doon dégg. xam-xam dafa am. nañu ko gëstu. ku ko def laa ne dégg boo amul alal boo amee ko. billaahi bëgguma cee gën a yàgg muy jël temps loolu lu leer la wala leerut. kon euh, càngaayul kaaraange kon ñu dugg fa andi ci ay leeral parce que euh, sangu am na solo waaye sangoo kaaraange tamit dana dindi waaye dana def loo xamante ni lu nar a ñëwati mu bule ko mu dem ci àll ba. dégg xaaral ma toog bu baax. am na fauteuil bi daa desee neex de. mboolem kuy génn ci internet ma xam la. Mm. maa la man ci kaaraange mën naa la cee duma léegi léegi. billaahi ñi ma xamagul nag wóoruma waaye ñi ma xam ñuy génn ci internet ma gis seen imaas maa ci man koo xam ne jàpp nga ne bokkoo ci nag yow laa tàmbale dégg kaaraanga yàlla dama cee cëral a cëral ba ma naan ndax judduwaale ma ko te sa normal ma judduwaale ko mm-hmm. ndax boo duggee bawal gi xam nañ ku ma doon mm-hmm. dégg yàlla dama suturaan hmm. bokkoon naa ci ñi nga xam ne sëñ tubaa daa séqoon ay jéego seeti seen maam seeti seen maam fekk ji ko te sëñ tubaa loolu yomb ko muy jóg déplacé pour seeti nit hmm. dugal bawal gi sama maam sëñ tubaa moo jóg déplacé dem seeti ko billaahi la si maam Samba Sondiou ku ko xamul dégg nga ko oh. boo duggee bawal dootuñ ko lam-laame su ma dee ab sëtam dégg su ma fajul tooñ hmm. dégg yemuma ci taf su ma ci yemoon mu doy bi jàng jotee yóbbu ñaari guy ku ko xamul dégg nga ko ba jàng jotee jàng naa dégg ba tërbiyu jotee tërbiyu naa barke bu jógee si sëñ Saliou direct lekk naa ko ba tàyyi dégg su ma dajalee yii yépp su bokkul si ñi fi man dinaa tooñ looloo waral kaaraange amoon na gu ñuul gu fi jaaroon xëy na danañ ci dikk mi ngi fi indi naa ko de waxtaanoon nañ ci waaye xam nga lu tax mu ñëw fan yi am na coow lu fi jaaroon yaakaar naa dana ci dikk ci kanam kon jërul ñu ciy xóotal pour xamal la ne kaaraange dafa am solo waaye sans kaar sans ndomba gi ndax dégg am na ñoo xam ne duñ takk ndomba ñi ngi ciy liggéey sangat boo xam ne billaahi la bu buñ la ko liggéeyee ku la joxoon baaraam nga dem tiim bàmmeelam man Abdou ko wax ku la joxoñ baaraam billaahi nga tiim bàmmeelam bu ñu ko liggéeyee ba noppi càngat bi sëñ dégg ñax gu sax ci bàmmeel lañ koy booleel boo noppee nga dem wuti melantaan buy dund tëmbal ko ci biir saafara bi nga sangoo ko benn yoon képp billaahi la si li des ak dund ku la joxoñ baaraam da nga tiim bàmmeelam ñaanal ko benn yoon lañ koy sangoo bu la neexee bokk ko yàgg sa njaboot dégg maa ngi yëngatu. ñuul ci ñuul ci ndomba gi ndomb gu ñuul ci. Ah, ak deru lan lañ ko ëwee tamit. ndomba gi. dégg kii su ma duggee Touba tëw a génnaat kii moo fa yàggal. waa dakaar dañ ma fiy xaar lu bari waaye bu ma duggee Touba tëw a génnaat rek lii moo fa yàggal. Mm-hmm. mbooleem ku ma xam dig-digal boobu ak li ko wër. Mm-hmm. nga yor mbooloo te xam ma kaaraange waxoon naa la ñoom ñëpp fii lañ koy wutee ci man. Mm-hmm. dégg kii. sëriñ si nga xam ne lum néew néew yëlëf nañ million taalibe. wala lum nee noo nga yilif 3000 taalibe ñooñu laa ñooñu ñoo ko gën a tax a jukk fan yi am na lu fi jaaroon am kilifa gum ci kawam looloo gën a yokk a nga pexey noonu kilifa war nga ko préparer wàcc ndax man moom xam naa am naa vidéo ñu ngi ñu xam naa ah. man am nga ay vidéo jombut kay. man kay maa ngi xaar sama vidéo mu génn. waaye bu génnee nag sëñ Modou Lo du man te du ma moom. Mm-hmm. waaw. gis nga dégg. Mm-hmm. sëriñ faaw nga mën a defante. Mm-hmm. sëñ Modou Lo nag moom daa jeex ci yàlla ba ëpp. waaye gis nga sëriñ. waaw da nga war a làq dara ci loo xam ne moom lañuy ñuy jëflante ak caay-caay. man nag maa ngi toog di xaar sama vidéo mu génn ñu xool ba xam nan laay réagir. bu ko dégg nee naa la ba taay rëq ndigul nit billaahi la sii moom a gën a yomb ci naanum ndox ñaata sa sëriñ yuñ génn fii nit toog ci internet bi di leen daggali saaga te mënuñ ci dara ak amaa naqari ndax damay ñaan yàlla na doon man dinaa la woo nga toog dégg man la diw moo ma saaga ci internet bi la nekk dama koy duma dégg ñu toog ma duma ko fii suba bu ko gisul man ma bàyyi ñaan dem ma xam ne xam ma dara gis nga dégg ñi jiita mbooloo amee taaliba yu dul jeex billaahi ñu bëri ñu ngi jël si ndomba gi. ñaar yi nga fi fekk nii borom yi mbooloo ñoo ko moom ay doomi seex. comme léegi taaliba yi nga xam ne ñoo waroon a ñëw jox sëñ bi seen bopp àdduna ak alaaxira yaakaar ko jël seen lépp wékk ko ñooy dem bay suufu sëñ bi. di ko lalal ay palaa pour toroxal ko. mooy aaxiru samaan ana la ana la Seex Ibra Faal waxoon na moom la toppee ab sëriñ. xam nga Seex Ibra dafa waxoon su ma doxoon ba fekk sëñ bi mu toog ma fekk ci biir néegam bitéeru sàngara mu wér ma ne sax moo ko doon naan du wàññi si sama taalibe dara dama koy gën a gëm sëñ dégg ñun ku ñëw fekk benn cigarette ci buntu saalu sëñ bi sax sam xel tey an sag sëriñ an sag taalibe xanaa wóolu koon ba jox sa bopp àddina ak alaaxira képp ku jiita mbooloo nag maa ngi la koy ñaan am ko billaahi ku la fexeel wàcc liggéey képp ku jiite mbooloo am ko ku la fexeel wàcc liggéey man Abdou Khadir maa ko wax. pexeem noonu doo ci tàbb mukk ba muy siiw bay àgg fii muy àgg. ayca kon numéro téléphone sëñ Abdou Khadir Ndiaye mi ngi noonu affiché ci suufu écran bi képp ku ko ci woo rek di nga ko jot sëñ bi ñu ñëw ci mbirum kayit tey ku bëgg papier lan moo ci gën a gaaw papier wala séjour wala sax ku bëgg visa. aka neexoon ñu ubbi lañ bi ñuy woote. Mhm. bañ ñu ci jot a jëflanteel woote kenn ku ne ko firme lañ ci lan nga ci dund ak ñun. Mhm. suñu sarax ci wàllu kayit ak a oyof ñette ginaar ak lañ ciy soxla bu ñuul bu xonq bu weex tàll nañ ko génne billaahi la si ñu jëflanteeg yow ci wàllu kayit boo ko amut ci nu mu gën a gaawee léegi léegi buñ la woon may lay kayit woo ma man Abdou Khadir boo amee xaj nga tuddee ma ko. te dégg. kuñ see ñaanal ndax xam nga ne dañuy garante dégg xam nga ne man amul lu may ñaanal nit lu mu mën a doon muy esañ may jël sa xaalis di ko lekk. ak lu mu mën a doon nag sans kayit indi fi ay millions yu dul jeex. boo amul résultat wooteel Abdou Khadir ma ne la ah nga ne ma sa sama xaalis yow laa ko joxoon ma delloo la lépp. wàllu këyit maa ci man ñi nekk bitim réew ngeen taw a ñibbisi fii ci Sénégal. nañ ci juboo léegi màggal Tuubaa gi ñu jëm da màggal si incha allah. loolu leer na. Ah, tey bayre mbooloo ah, tamit nit ñi bëgg nañ ko parce que des fois nit woote am njaay wala nit woote am ndaje wala sax nit nekk ab waykat wala nit ah, nekk ci place bëgg bayre mbooloo fekk ko fa waaye du ko am xeeti bayre yi wuute na différence bayre yi tey bëggoon naa nga tojal ma ko ak bayre mbooloo ban moo ci gën a gaaw. jërëjëf sëñ dégg xeeb naa ko lool nag ndax mooy li sëñ bay jaxate doon wax bëri lu muy faj du te kenn dee ku dee nag du ànd ak lu may ay jëfam. ku yor yenn mool mool wataa mokk far nga naan jox ma téeméeri mool luy mbiram ku dul def bu dee seen nit jóg di dana watta wutiw nit wutiw nit du ndam waaye billaahi ku ko soxla dégg boo ñëwee fii ma jox la ko doonal sëriñ bokkal ci doomi soxna yi bu dee ay taalibe nga soxla boo ñëwee man Abdou Khadir ma jox la loo xam ne dégg danga am yi taalibe ba tiit <laughs> ndeysaan sëñ baa nga jooy chee tët tët sama yaram dafa daw. dégg. bëri na ñu mbooloo topp seen ginnaaw. bu ñuy sant man la ñuy sant de. Eh. ba noppi door a sant yàlla ndax yàlla nee na ku dul sant doomu aadama jëlul nga may sant. dégg wàllu mbooloo dama ci ay lool. bu fekkee. ku bëgg ay taalibe la wala ku nekk ci entreprise bëgg ñu déggal la liñ lay jox dégg am nañ ci xam-xam bu ñuul am nañ ci bu weex def ko ci lekk gu ñu lekk wala ñu naan billaahi la si daañ la topp ba nga tiit nga ne billaahi dégg yoral place am na lu ñu liggéey di ko def ci jën 61 jën lay doon dégg place bu ñu ko def nit ñi danañ ko ràng ba nit ñi naan kii daam lu laal dégg palaas yu bari fii ci biir Dakar yaa ngi fay dem fekk mbooloo ma bëri fa lool di rang mm-hmm. nga yaakaar ne ku ne ko def kenn defu ko lu dul boroom roxo bu tuut bii bayra mm-hmm. mbooloo dégg ci gàttal maa ci man bëgguma cee taxaw sax ndax su ma ci taxawee dafay mel ni damay delloowaat gone daal ndax mm-hmm. xem naa xam-xam boobu mais sëñ euh, man tey euh, néew kàttan wax dëgg yàlla sañ naa taxaw nag def témoignage parce que da nga yor garab gi di ko joxe ah, ma am ku ma boole woon ak benn sëriñ sëñ ba jox ko garabu néew kattan waaye waa ji nee na gisu ca résultat ne ko est ce nga woo sëñ Abdou Khadir bi mu la wooyee moom ci boppam moo taxaw ne ma wax dëgg yàlla ah, garabu néew kàttan gi li ci sëñ boo xoon rek gis naa ci lu ko féete kaw ah, kon garab gi tey bëgg naa nga ñëw ci wàllu ngóora. dégg defaratuma ko sax ay gone laa jox kër ga ñu ñu nekk ci léegi. ay gone. Mhm. laa jox kër gi léegi ñoom laa ko féetale ñoo ciy nekk. Mhm. dégg kooku nga dégg mbooloo mu dul jeex fii néeg biir néeg yi. Mhm. dégg dañ fay defoon émission bu jàll. ma waxoon ne problème yi ci biir néegi ba jigéen ñi gàddaay di delluwaat seen kër yi bàyyi nañ ma woo. ku ma ci masawoo ku ne soxla sa bu fekkoon mu yoroonub saagam dégg dëppaat na wàllu kàttan moom dégg mhm. pour man daal du xam-xam sax ba walla dëkk di oh. fara garab wu njaay àll bi njaay la sant dégg petit cola dégg naa yaa ngi def lu garaaw petit cola mii dégg da nga man xam naa nit ñi nga bëgg ñu xam waaye du yow petit xorom polle ak ñoom seen mhm. foofu laa ci yam dégg maa ngi ciy lijjante biir néeg yi ba coow yi di fay ñi gàddu jigéen ñi gàddu woon seeni saak di dem seeni kër bàyyi ak yaay ñu ngi ñibbisiwaat de billaahi ñu bari ñu ngi ñibbisiwaat te képp koo xam na manqué am problème mu biir néeg moo la dépassé si sa soxna ba sa soxna gàddaay dégg woo ma biir néeg yi maa ci man moromante ma ci te li ma ciy liggéey léegi xeeb naa ci daal toog di si rey sama temps dégg ay gone yi ndaw laa jox ñi ciy liggéey. wàllu kàttan képp koo xam ne jëflante nañ ci boo gisul résultat kaay ñu delloo la sab xaalis. bépp soxna soo xam ne loolu moo tax nga bëgg a gàddaay sa jëkk dellu sa kër baay woo ma. léegi léegi sax nag ma xaw a def ko gratuitement. ndax problème yi problème yi ci biir néegi yi dégg mi ngi bëgg a ëppe lox léegi léegi nga gis kilifa gu mag a mag goo xam ne mbooloo mi jullit ñi dañ koo nawloo lool lu mel noonu dong tax soxna si bëgg gàddaay léeg-léeg ngis borom ndombal tànk lu àdduna lu kawe lool. lu mel noonu képp tax soxna si bëgg gàddaay. woo leen ma ma régler problème yi incha allah. sëñ Abdou Khadre la lan ngay tàggatoo ak looy wax euh, réew mi lay seetaan lan ngay wax tamit euh, mbirum euh, combat Balla Gaye ak Gris Bordeaux Sonko tamit soo ci mënee laal laata ngay tàggatoo nga laal ci parce que élection yi mi ngi ci moom validé wuñ candidat am waaye ba tey mi ngi campagne. jërëjëf macha allah sëñ dégg. Mhm. bi. di delloo sant mboolem ñi nga xam ne dañuy safoo suñu jëmm ndax soxaluñ leen suukar soxaluñ leen lem mhm. waaye dégg am na ñoo xam ne dafay mel ni daal sunuy émission garab la ci ñoom buñ ko jëlul du ñu am jàmm buñ nekkee Touba dañ ñuy sonal billaahi mhm. ci sëñ bi xanaa danga bàyyi man leen yéen su ma bàyyee àdduna tukki mhm. <laughs> ma ne ko su ma bàyyee àdduna tukki dégg bu fekkee wàllu élection yi nag bëgguma sama kàddu di ci bari li tax bëgguma sama kàddu di ci bëri yàlla baax <laughs> waaye dégg élection yi lëndëm na de lëndëm na lool lëndëm na lool sax da jàpp ne njuuj njaaj mën na ci am mu metti sax waaye nag ñim concerné dégg buñ bàyyee bañ na suba la sax buñ ma woowee ma réglé ko waxuma bu desee ñetti fan de. Hmm. ñim concerné. buñ bàyyee bañ na suba la sax buñ ma woy ma réglé ko ci guddi gi. Hmm. dégg xanaa xamoo ne fal hmm. ak folli maa ci man mboolem koy génn ci internet. moom fal ak man mboolem kuy génn ci xam nga lu waral loolu. baatu falu ci jëmmi boppam. dafa dugg ci biir saati te saati maay boroom. falu laal na ci jëmmi boppam dafa dugg ci biir saati te saati maay borom bokkuma ko ku yàlla bind dégg dégg ku bëgg a falu na ma woo ñàkkal bay rek lu mu ci man di doon sama yónneewut ci loolu boo bëggee falu rek woo ma waaye élection yi lëndëm na lool ah. bu ñu respecté wut samay kàddu yi nag bu ñu doxee diir ñu xam ne élection yi lëndëm na mm-hmm. président Macky Sall. ñu ngi koy ñaan na jekkalaat toogaayam. Mm-hmm. li koy yoot baaxul de. li koy yoot ah. baaxul na jekkalaat toogaayam. xaayaan ku dégg séeréer nag te moom yaakaar naa dégg na séeréer. Mm-hmm. bu dee wàllu combat Balla Gaye Gris dégg bëgguma cee wax ndax ñaari côté yépp dama cee am samay nit yoo xam ne. Mm-hmm. ñoom ñoo ma njëkk woone ma bu ci wax. ok bu ko defee kon loolu nañ ma ko jéggal. incha allah ñi ngi santaat bu baax mboolem mbokk yépp mm-hmm. di ñaanal jàmm mboolem ñi nga xam ne ñi ngi safoo suñu jëmm mm-hmm. di leen tuuba di leen jégalu ci géej gee def émission mm-hmm. situation Touba moo xaw a xat rek ndax ni nga ñuy soxlaa la ñuy soxla kilifay diina yooyu ñoo ñu gën a soxla kon waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ay ca mbokk yi dégg ngeen waxtaan wu am solo wi Serigne Abdou Khadir Ndiaye Touba waxtaanee muy waxtaan woo xamante ni njariñ la nekk waxtaan woo xamante ni ngëneel la jàmbaar la ñaankatu yàlla la waaye kilifa la tamit boroom xam-xam la ay ca téléphone yaa ngi noonu affiché képp ku ci woote rek di ko jot mbokk yi ñu doon topp du ñu suivre ci improtive TV yàlla na ngeen bëri jàmm ci darajay Muhammad Rasulullah